diko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne moom sunu borom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di salmal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala sahabati ajmain ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن innaka raufur rahim dellu siwaat nañ suñu ñetteelu bind wala suñu ñeenteelu bind ci dundu abu bakrin as-siddiq radiyallahu anhu wa ardaa mbokki julit yi ñu xam ni abu bakrin jëmm ju rëy la fa yarant bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekkee jëmm ju rëy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko nekkee ci suñu boroom mbokki jullit ñu xam ni Abu Bakrin moom mooy ki gën a foor ci xeetu lislaam yi buy ab yonenteem jàllee sallallahu alayhi wa kii dafa jaadu ñu xam ko dafa jaadu ñu bëgg ko dafa jaadu ñu xam ay jaar-jaaram xam sacrifice yi nga xamante ni doon na ko def ngir yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loola ab nattukaay la ngir kenn ku ci nekk ci ñun mu xam ni loo jàmbaare jàmbaare wala gis ko gis ku jàmbaare du ñu àgg bakrin ak ña mel ni moom ca saxaaba ya lu tolloog ci deedee we kon nag lay masud waxoon fay saxaaba ya war a am ci ñun ci gëdd ak dayo ak wegeel des na leen ko jox sunu ñeenteelu bind ci dundu Aboubacarin Siddiq ngir ñu gën a xam kan mooy Aboubacarin gën koo bëgg gën koo fonk tey nu ngi tàmbalee ci Aboubacarin lam yakun li yufshi sirra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saa bu ne Aboubacarin as-Siddiq lañ ciy teg ku dëggu ki joxe njub lu ñuy tuddee Alqur'an. manam aajoom jërutut mu koy wëreeti feneen ndax borom yi ba muy wàcc aadama nag fa imma yatiyannakum minni hudan ñaari yoon la ko wax ci téere bi benn bi dani ko fa man tabia hudaya benn fa man ittabaa fala yadillu wala yasqa fee mu fala xawfun alayhim wa hum yaxzanuun xoolal ñeenti baat yooyu fala yadillu wala yasqa fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alxawf walxazan ak dalaala ak shaqaawa doomu aadama bu ci mucc ci ñeent yi faw da ngay jaxe dinaay wax suma bopp di wax mbokk yi ne nun dañuy jàng alquran waaye duñ ko settantal gis nga moo tax yàlla ne afala yatadabbaruuna alquran xanaa nit ñi dañ doon settantal alquran yàlla xam ne ne buñ doon settantal alquran bis bu nekk mbell bu bees taq la ñuy am bis bu nekk sa wërsëgu njub bu bees sàq la ñuy am te téere bi ku ñëw jariñu sa moroom ñëw jariñu te kenn mënta jël lépp ba mu jeex la sakka ni ñeent yooyu ma lim ku ko xool ba ci biir da gis ni mooy toskare yi nga xam ne moo mën a gàllankoor doomu aadama seetlul nag bu baax toskare ju dal doomu aadama ba mu yàqu rek ba mu sànk toskare jooju génnul benn ci ñeenti yooyu ma lim te ñeent yooyu sunu borom dañi ko jàpp ci téere bi danga ci mucc foofu di nga yëg ni képp ku bëgg a mucc ci lii tax nit ki xal ko mbaamu sànq dafay topp njub lii di alquran ak sunna alquran nag mbokk jullit yi bawut dara lépp jàngale na lu jëm ci buntu njabar alquran da cee lu bari di wane ni lu am la ay ayat yu bare bare bari rot na ci alquran di wane ni lu am la bokk na ci ayat yooyu wattabau ma tatlu shayatin ala mulki suleyman bokk na ci ayat yooyu la rot ci suratul araf rotat ci suratu yunus rotat ci suratu taha di aaya yi nga xam ne mooy waane diggante njabarkat yi ak Muusa te borom xam-xam yi nga xam dañuy faj lu jëm ci wàllu njabar ci mocc di ko jëfandikoo néew na téere booy dem buy wax ci wàllu mocc lu dul ayat yooyu dina ko indi muy ayat yu dal ci wàllu njabar sunu borom di wane ni lu sax la lu am la di nekk lu fi amoon ak yeneen i aayaat yu bari yoo xam ne boo ko toppoon ci téere bi bu dul woon ak bañ waxtu jël njëkk ci lu nu taxul woon a jóg mënees na indi aayaat yooyu lépp wane ni kon jabar lu am la boroom bi saxal ni lu am la boroom xam-xami lislaam yi tamit saxal ñaareel bi njabar mooy lan njabar ay xeeti yëf la yoo xam ni yii ci ay pas-pas lay jaar yee ci ay wax lay jaar yii ci ay jëf lay jaar yoo xam ne seytaane da koy def seytaane su ma ne ko waxee mooy nit ki ak ginne gi ñu jëfandikoo ko ba mën a def am jeexintal ci jëmmi doomu aadama jeexintal yooya mën naa dem ba wëlbati am xelam mën naa dem ba yàqal ko wala mu gàllankoor ko ci addinaam waaye nag li gën a yéeme mooy du def jeexintal ci pas-pas déedéet loolu mooy li gën a yéeme nag ci ci njabar du def jeexintal ci pas gis nga nit ki nga xamante ni dañ koo njabar bu fekkee wéeru na ni pas-pasam dëgëroon na mel na mu war a mel njabar gi du def jeexintal ci pas-pasam déedéet mën na ko gàllankoor nag ci wàllu diineem bàyyi leen xel tomb boobu baax ndax damay ragal nit jóg waxal ma lu ma waxut maanaam mën naa def jeexintal ci diineem def jeexintal ci diineem ak def jeexintal ci pas-pasam bokkul ndax def jeexintal ci diineem mooy mën naa dem ba yëf yi jàpp ko ba julli jot sax nga ne ko kaay julli mu ni julliwoo xam nga ko def na jeexantal ci diineem waaye gis nga loolu amaan na xaala ba mu toll tax mu di ko wax waaye jëmmi pas-pas bi nga xam ne fa la dencoon ngëm nga te mu wér te dëgg borom xam-xame l'islam dañuy wax lu def jeexantal ci kooku moom suñu borom da ko protégé muy lu rëy njabar lu yàgg la ci kaw suuf mbokk ji lu yàgg la ci kaw suuf firnde mooy lii ma jot a ci ay ayat ci diggante Souleymane ak aw nitam ak diggante Muusa ak njabarkat yi bu fekkee Suleymaan la ak nitam gis ngeen ci suuratul baqara ci laayay téeméeril ak ñaar sunu borom bi nga wax wattabaau ma tatlu shayaatinu ala mulki Suleymaan wa ma kafara Suleymaan walakina shayaatina kafaru yuallimuna annaasa sihra ala kulli xaal ci tekki gu gaaw rek ngir ñu mën koo jëriñoo jàll yahud yi dafa am ay wax yoo xam ne dañ koy faral di wax di ko taqal yonent yàlla yu baax yi te fekk ñoom ñoo ñu taq ñu ñu tilim ñu sunu borom bi mu nettalee seen mbir ci suratul baqara wane ne ñoom kat dañ doon soppi dañ doon def nangam wax seen xeeti mbonte yi ba àggal bokk na ca lañ doon def ci ay xeeti mbonte mu ne wattabaau ma taqdi shayatinu ala mulki dañoo topp li nga xam ne seytaane yi moo leen ko doon digtal di leen ko wax ci nguurub yonent yàlla Souleymane waaye nag nañu xam ne Souleymane moom weddiwut suñ borom waaye saytaana yee weddi suñ borom laaya ji nag ay wax yu bare bare bari borom xam-xam wax nañ ku dellu ci tafasir ibn jarir at-tabari wala ibn kathir li nga fekk wax yu bari sax yu bare bare bare bari waaye wax yooyu la ko tënk rek insha allah mooy am na ci ñuy wax ni yonent yàlla Souleymane alayhi salatu wasalaam ci jamonoom saytaana déglu te jamono yëpp ci jamono yi sa salaam di déglu ci asamaan si ay wax yastariquuna samaa comme ni mu ñëwee ci suurtu jinni ba ñuy wax ni bañ leen ko teree ku yéeg ca kaw rek fa ma yastami ana yajid lahu shihab rasada bu ñu yéegee ca kaw dégg fa dara bu ñu dikkee daal di cay kolkolol ay fen daal di koy nettali bu xaaba bi muy seytaane bi seytaane bi daal di koy nettali nit ci jamono jooju ñu doon bind ay mbind yoo xamante ni ak njabar moo ca nekk ba nga xamante ni dem nañ ba nit ñi gëm ni kat buxaaba yi njabarkat yi ñoom xam nañ kumpa bi ko yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam déggee mu daal leen di woolu bi mu leen wooloo ba ñu yegg si mu jël loola jël ko nangu ko ci ñoom gas ko suul ko ci ron nga gàngunaay gi mu doon toog daal tëkkuwaate ci képp koo xamante ni defati nag njabar wala mu wax lu ci jëm te loos wi dana dagg noonu Souleymane continué ci dundam ba faatu bi mu faatoo seytaane tegtal leen ay tegtal ni est ce que xam ngeen ni Souleymane du woon ab yonent ñu ne ah du woon yonent ab njabarkat la woon la cay firnde mooy bu ngeen demee ci barab sàngam xam ne seytaan daf saay saay bu ngeen demee ci barab sàngam ngeen yëkkati pe piliyaan ba dajji gas tuuti di ngeen fa fekk ay xeeti xaatima ki rëdd. yoo xamante ni Souleymane mii moo ko doon jëfandikoo bu ngeen gisee mu ñett jinne yi ñett nit ñett àddina bi xam ngeen loolu xel nanguwu ko kon lii la doon jëfandikoo loolu la seytaan olof naan seytaane waxu dëgg waaye yàq na xel bu ko defee wax ji daal di law nag tasaaroo ñu ne kon Souleymane du woon ab yonent waaye am jabarkat la woon loolu nag pour suñu war suñu waram teggi ko man wa maa kafara Souleymane Souleymane weddiwul suñu borom de firndee goog qissa bi ma wax boo demee ci Ibn Kathir demee ci imam Qurtubi boo demee ci imam Tabari mu bare bare ñu koy nettali wax nañ yeneen wax yu gën a yaatu yooyu maa ko ci waaye njàngat bi ngay njëkk a def foofu mooy wa maa kafara Souleymane Souleymane weddiwut suñu borom walakin shayatina kafaru loolu rek moo lay war ni kon ab buxaaba ab buxaaba ci boppam ku weddi yàlla la waaye ab saytaane la ñaar yëpp dañ ko ci dégg moo tax ma ne Qur'an boo ko dee jàng gis nga suñu borom waxin mu xóot lay wax woo xam ni bu doon détaillé doomu aadama wax yu bare bare bare ngay indi sa mbir doo ko complété waaye lu gàtt lay wax lu gàtt loola mu wax ay mbir ay nekk ca biir wa ma kafara Souleymane mënoon nañ Souleymane deful ak njabar mënoon nañ liñ koy jiiñ du moom waaye automatiquement dafa dem ca jëf jëf lubb ba mbir ma Souleymane day nekkul woon weddiwul suñu borom saytaane yi ñoo weddi suñu borom mbirum weddi kenn tudd ko fa ñun ci cadre njabar lañ doon wax suñu borom indi baatab kufr moo tax borom xam-xam yi jàngale wàllu aqida dañuy wax ni kon day firndee ngoog bu lay wan ni sixar ci boppam muy ak njabar moo xam buxaaba la moo xam tariyax la moo xam nuñ ko mën ci tuddee moo xam petaawkat gindalkat seetkat lool lépp ci ay turam la waaye ak njabar lay tudd te njabar moom muntahal qawli moom mooy kufru la dëgg la nag léeg-léeg borom lañ def ay teexantal ndax suñ kii mi def xam na ko wala xamu ko yooyu yëpp ay mbir la mooy bala ñuy àtte ni ki daa diw jël àtte bi di ko teg ci kenn nit nag ci la ñuy indi détail ba waaye ala wajhil umum da nga naan sixar moom kufr la mu jeex kooku amul sax benn weral seytaane yi ñoo weddi woon suñu borom seytaane yooya borom xam ne dañuy wax ni kon moo lay wan ni sixar képp ku koy def rek jàppee ko seytaane sixar ku koy def muy góor muy jigéen jàppee ko seytaane yuallimuuna annaasa sixra ñoo doon jàngal nit ñi ak njabar sunu borom mu ni ak la nga xam ni wàcce woon nan ko ca ñaari malaaka yi di Haarut ak Maarut foofu nag moo indi wax ju bari ja nag moom foofu moom borom xam dañ cee waxa waxa waxa wax ba daanaka lañ ca wax lépp boo bëggoona a toog di ko nettali sax bu yàggee gee fi la lay fekk waaye euh, wax yu bare bare wérut wérut wérut yuñ cay wax donte dañ koy dégg léeg lu mel ni ñaari malaaka la woon yoo xamante ni malaaka yi dañoo xeeboon jaamu yàlla yi doomu yi ñu ne suñu borom ñii li ñuy def di rey nit di def nangam def nangam sunu boroom ni leen su ma leen defoon ngeen mel ni ngeen ñoom di ngeen mooy sunu borom ñu ne ko déedéet ah kon essayal ba xam suñu borom tànn ñaari malaaka ñu Haarut ak Maaruut yebal leen ñëw ci kaw suuf mu jox leen yëg-yëgu doomu aadama benn jigéen romb leen jigéen ji ñu gis ko bëgg ko wax ay wax ba àggal ba mu gaar ndaw sa gaaral leen njaalo ñu bañ mu gaaral leen rey nit ñu bañ mu gaaral leen sàngara ñu nangu koo naan bañ ko naanee daal di njaalo rey bakkan ba ila axiri ay xusaabalaat xuraafaat la soo demee ci téere yi jàngal al israiliyat wal mawduat fi kitaabi rahman da nga gis ni dañ koy dàq ibni kathir ënd na fi tafsiram waaye da koo dàq tamit kadalika ak yeneen borom yi xam-xam li am daal mooy ñaari malaaka lañ waxal la sun borom wax te ibni usaymin rahimahullah biñ ko laajee laaj bi loolu la tontu ñaari malaaka la yoo xam ne sunu borom daf leen a wàcce woon ci saabiqi ilmihi ci li donte njabar baaxut waaye moom moo dogal loola ngir daf li natt doomu aadama yi muy haaruta ak maaruta sunu borom mu ni bi ñu wàccee wa ma yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna bala ñu lay jàngal sart bi mooy lii ñu lay jàngal baaxul bul ko jàng ak njabar la dangay ngay bu ko jàng suñ la avertiré nga nangu baax na boo nangu ñu doog lay jàngal loolu nattu suñu borom suñu borom moo ko dogalee noonu am na ci mu fassiru ni ñu wax ni bu nit ki ñëwee dañ koy wax ni ko lii kat buñ la ko jàngalee da man nga alku mu ni bëgg naa nee na bu dee bëgg naa dañ koy wax ni ko demal nga taxaw ci barab bële su taxawee foofu dafay jékki-jékki rek seen benn lumière di génnee ci moom bi naaw jëm kaw asamaan mooy yow alku nga yow maanaam benn lumière ngay gis mu génnee ci yow rek naaw jëm ca kaw mooy alku nga yow su ko defee doomu aadama daal di tàmbalee yëg ak waw xol ak mbon njabar doog a dugg si loolu mu fassiru ni bari wax nañ ko waaye malaaka yooyu bu ñuy jàngale bokk na ca doon wax mooy takk takfur bul weddi yàlla kon ndeke sixar kufru la jàng ko kufru la jëfandikoo ko la dem ci ñi koy jëfandikoo kufru la fala takfur bul weddi yàlla waxuñu ko bul jàng njabar waxuñu ko bul jàng lii ñu lay jàngal dañu ko bul weddi yàlla maanaam gis nga seetlul baat bi wa ma kafara Souleymane mu tudd kufru walakin ne kafaru mu tudd kufru nga ñëwaat fii fala takfur gis nga baat fu ñuy tuddee njabar rek bul weddi yàlla la ñuy wax maanaam moo lay wax ni kon mbir mi dafa nekkatul mbirum njabar léegi waaye mbirum génn kon loolu da lay wan ni mbir mi simple suñu borom ni doon nañ jàng ci ñaari malaaka yooyu doon na innama nahnu fitna ñun fitna leen yàlla moo ñu wàcce ngir ñu natt doomu aadama yi ngir ñiy jàdd yoon ak ñi dul jàdd yoon muy fa yata'allamuna minhuma ma a bihi bayna al-mar'i wa zawji bokk na ca lañ doon jàng ci ñoom mooy luy teqale diggante nit ak soxnaam kooku nag ëmbaale nañ soxnaam ñu sax xaritam ila axir comme ni mu ñëwee ci xadis yéen ci yàlla bi ne seytaane fi mu ne màggat na mi ngi teg iliyaanam dafa yebal ni ko def naa nanga mu ni ko waaw góor ku ñëw ni ko def naa nanga mu ni waaw góor ki ñëw ni ko fexe ba teqale diw ak mu ni ko yow yaa liggéey mu gën a bëgg mooy teqale waaye ci a am na ci borom xam-xam yi lu ñuy tuddee njabaruk noob njabaruk noob dañ koy def jigéen noob jigéen ji ba jigéen ni muy toppee xaj ni muy toppee borom noonu la jigéen ji toppee moo tax lu jar a def attention léeg-léeg nga gis ñàkk xam dana waral gis sa rakk wala sa lenn yàlla natt ko mu topp benn façon bu ñaaw nii nga topp di dóor bëgg indi sa bopp fitna ci jamono ji fekk boo seetloo suuf suba dëgg dëgg dëgg xamoo moom li muy def du réewante ko waxuma nag saa su amee loolooy am déedéet dama ni léeg-léeg loolu mooy am su ko defee ñu ne dañuy juum juumte bu rëy moo tax masale yi di ci xaw a teey di jokkoog ñi nga xamante ni xëy na xam nañ mbir yu mel noonu dafa am solo ñaareel bi tamit jigéen da koy def góor jigéen dana nopp mën na nopp jëkkëram jëkkër ji topp ko da gis góor goo xamante ni ku baax la ku ragal yàlla ci misaal laay joxe rek ndax leneen mën naa amit waaye lii dama koy joxe misaal ndax dafa am moo tax baax ragal yàlla yore ay soxna nga gis mu jeng ci kenn ci soxna yi loo xam lu ëpp la nga daal di toog fële di ko sikkal di bàkkaar ci moom fekk yàlla xam ne li muy def sayu loolu lu mat a bàyyi xel li tax ma ma indi misaal bu mel ni bàyyi yi ci des damaa gis yu mel noonu nit ñi di ci bàkkaar te yàlla xam ne ne kii li muy def sayu du dafa jeng de li muy def da koo tayu masala moom tamit lu mat a bàyyi xel la am na lu ñuy tuddee sixru tafriq dëddale teqale xam nga bee moom nopp la bii teqale la dañ koy def diggante jëkkër ak jabar baay ak doom dëddale lay doon da ngay koo xam dafa dëddoog way juróom dëddoog nangam te fekk li cëpp boo seetloo njabar moo koy def beneen bi ci des mooy am na lu ñu tuddee naawtal naawtal mooy njabar goo xam ne suñ ko defee léeg-léeg nit mën na ko def kenn rek day génn dem yoon du xam lu ko yóbbu moo sa saa da ngay génn dëkk bi sa saa nga génn kër gi sa saa nga génn réew mi ila axiri yi wala nga nekkoon sa liggéey nga yàqule foofa mu naawtal la nga jóge fa soo seetloo ci bureau yeeg entreprise yeeg euh, liggéeyukaay yi dafay am lu bari am na lu ñu tuddee wootal wootal mooy ki nga bëgg mu ñëw te mënoo fexe mu ñëw nga def loo xamante ni day jékki-jékki ñëw ku waxtaankat ak tukkikat yi lii dama ci def gëstu bu yaatu ba waxtaanee tukkikat yi da ngay jékki-jékki rek benn waay xëy mu ni sa waay suba damay dem nga jëm kaw jëm suuf ñu def mu wóor la ni kii amul benn raison bu ko tax dem Sénégal moom ci jëmi boom boo ko laajee looy wuti mënu la ko wax fekk dañ ko def loo xamante ni dañ ko wootal wootal mooy xëcc pour mu ñëw wootal naawtal noob yi yëpp ay xeeti njabar la yoo xam ne benn bu ci nekk am na ay détails yu am ca biir xëy na waxtaan yu mel ni doo ci mën a leeral lépp waaye ci gàttal kon sunu borom yi day teqee diggante dëkk soxnaam waaye nag wa ma hum bi daarina bi min ahadin illa bi idnillah mooy mënuñoo lor moom njabarkat yi léegi nag dèjà kon bi nga xamee ne njabar am na te it lu bon la te kufru la te dëgg la te ñi ngi yàq te yàq gi àgg na fi nga bëgg commencé tiit mu ne la déet mbir mi jarul tiit wa ma hum bi darrina bi min ahadin illa bi idnillah mënuñoo lor kenn gis nga fi ne ni nga war a gëmee ni ni nga gëmee ni xam ngeen ni woto yi bari nañ Dakar fi ne woto fël la nga dee léegi dafa yomb parce que woto yi dañoo bari waaye benn woto du la fël lu dul yàlla moo ko dogal fi mu nekk nii ñu ngi nii liñ nekk dara du ci sécurité foo wëlbatiku ak fiil mi ngi la tiim xam ngeen ni fiil yi dara wóoru ci waaye fiil du dal ci sa kaw lu dul yàlla moo ko dogal kon beneen bi ci des mooy xeet yi nga xamante ni mooy ay xeeti musiba yu ñuy lekk yu am poison yu ci bari mi ngi ci dëkk bi nga xam ne bis bu nekk nekkoo en sécurité waaye du la dal lu dul moo ko dogal gis nga yooyu ni nga ko gëmee gëmal ni njabar tamit noonu la mel gis nga misaal bii ma joxe bu am solo la parce que misaal boobu bu leere ci sa bopp rek tiitaange ji nga doon siit njabar day daal di commencé dañ te njabar doole bi mu gën a am ci yow mooy tiit gi nga ko tiit ibnul qayim rahimahullah ibnul qayim nee na saytaane yi ci seen jëmmi bopp ñoom sax dañuy wax ni xol yi gën a ñeme mooy xol yi ngëm yàlla nekkul ak yi alquran nekkul su suñu agsee doole bi ñuy àndal kenn du xam nu mu toll waaye borom pas-pas ak gis nga lekk-lekk yàlla nattu la nga am pas-pas bu set ñu jabar la nga sonn ba say mbokk di lu di nangam fekk yaa ngi feebar ñu naan kii de yëf yi métti na wallahi sa pas-pas tey mu gën a métti da doon dee yow maanaam def nañ la loo xamante ni yow am nga ay anti anti yu nekk sa yaram yoo xamante ni anti njabar yoo xam ne jàng Qur'an beeg pas-pas bu set beeg sa góorgóorlu gi moo waral affaire bi mu àttee vitesse su mille daf koo wàññi ba daanaka genn wàll gi moo dóoru ci sa kaw waaye bu dul woon ak pas-pas bi nga yore yow yow ca min to addulil mawta yow dañ lay boole ca néew yooyu moo tax gis nga am pas-pas bu set ak di jàng Qur'an ak di góorgóorlu gis nga bul ko def mukk nga di ko xeeb loolu mu ngi liggéey ci sa xol loo xam ne yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala danañ jàng loo xam maa yaduru wala yanfa'u day lore du jariñ firndee ngoog bu lay wan ni njabar dara amu ci njariñ njabar moom minal bidaaya ila nihaaya amul njariñ déedéet même bu fekkente ni maanaam nit ki dañ koo liggéey liggéey bi jàpp ba ba li nga wut nga am ko njariñ amu ci firnde bi mooy njabar wor fecc kóllëre tooñ tas yaakaar yii mooy yoo xam ne nit su ko mas a def tey ëpp na ko sax maa lim yooyu rek nit ku ko mas a def même bu amee jeexintal nga gis ko nii nii nii nii nii baa ngi sa kanam balaa ngay dee maanaam duñu xaar àllaaxira koo mas a gis mu njabar ab nit wala mu def ko lu bon wala mu nekk njabarkat maanaam kooku duñu xaar ba àllaaxira xeeti bàkkaar yoo xam ni borom bi du ko nit ba àllaaxira doo koy lijjanti maanaam lijjanti gi fii lay tàmbalee loolu moom njabar ak wor fecci kóllëre tas yaakaar tooñ moo tax doon naa ko mbokk yi ci buntu wàcc soxna takk fase ci suuratu talaaq muy loo xam ne ñu ngi a sax mbokk yu bari ñu déglu ko ndax am na solo maanaam gis nga nit ki bala muy wàcc soxnaam wala muy muy muy ñaan baat moom ku jigéen ki na xool ñett yi gis nga sëy boo xam ne da ngaa wor doog a fase tas yaakaar doog a fase fecc colère doog a fase tooñ doog a fase moo contraire bi nga def ko doog a ñaan baata yow balaa ngay paatu ji nga ci texte bi kooku amul werante kooku moom jarul ngay jàngi beneen téere la demee noonu la demee yëkkati ba ca kaw rek daanu wàcc ci suuf rek noonu la mel borom bi subhanahu wa taala mu ni kon la ñuy jàng daf leen di lor waaye du leen jariñ mu ni wa laqad alimu laman istaraahu ma lahu fi l axirati min xalaq moo ne xamees dani day xoolal baat bi ñu jëfandikoo laman istara istara jënd mel ni ko yore ak ak ak ak ak ak ak ak marchandise mu ñuy jaay gis nga borom bi subhanahu wa taala dafa gis nga njabar lu doy waar njabar am njaay dañ ciy commerce di njabar dañ ciy commerce parce que ki koy def da koy jàngale kaay ma jox la turu yàlla kaay ma nangam kaay ma liggéeyal ma nangam ma jox la nangam fii may wax ak yow est-ce que xam ngeen ni ay nit a ngi génne ay millions di ko jox ay nit ñu jox leen wenn tur wuñ naan turu yàlla la fekk du turu yàlla de turu yàlla wu jari million amul fen turu yàlla yëpp gratuit la turu yàlla yeeg ngelaw li mook alquran ji ak yëpp yëpp gratuit la yàlla def bëgg mu yomb walillahi al asmaul husna fad'uhu biha affaire bi dañ ko ubbi porte ouverte la amul lu ñuy nëbbu kenn waaye yooyu ñuy def di ko jaayante jëndante benn waaye nee na ma ku ci doon yëngu alhamdulilah yàlla defal ko tawfiq mu génn ci nee na ma est ce que xam nga ni dana yëkkati lu mat vingt nangam million wala trente million joxe ko ngir ñu jox ko wenn tur waaw parce que moom lam tey amaat moom it day ëpp loolu wala qad alimu rek xoolal ba yàlla wax loolu subhanahu wa ak ni mu yàggee ba tey ñaareel bi mooy maanaam njabar ci jëmmi boppam jëflante gi ñu ciy jëflante xam ngeen tey ci commerce yi gën a dox la bokk tey jii njabar ci yi gën a dox la bokk fi mu nekk nii dem nañ ba jàngkatu arabisant yi fi mu nekk nii sama sama sama maat bi léegi fi mu nekk nii nga yore keneen dem di jàngale nga nangam da ngay dégg ñu naan su raccourci ko rek léegi loolu la nit ñi wax raccourci bi mooy lan toog di jàngale kii jàng bitim réew ilaaxir dafa yàgg ay kii nga ay talaatin lan lay jox jox la ay xaatim jox la ay nangam nga daal di koy man dugg sa ruq léegi nga nekk millionnaire maa la ko wax parce que commerce bu dox la waye li gëna a moy sunu borom ni malaku fil akhirati min khalaq al alaxira moom amu fa tus gis nga borom dañuy wax ni li lay wone ni sihr kufru du bon la moy képp kuñ ni malaku fil akhirati min khalaq mo lay wone yow baxu da ngay da parce que nit ki lu mu say say say say say say te bokale wut yàlla même buñ ko tambalé safara lahu fil akhirati min khalaq dina fa am xalaq dina fa am ab cër cër ba moy dina tàbbi sawara après ñu wat ko duggal ko waye njabar kat mom bu faato ci jabar gi ma lahu fil axirati min xalaaq yàlla mu ni benn cër dara du ko amal laaxira mooy sawara lay tàbbi te it nag dafay sax ndax kufru la te it shirk la te mushrik bi su faatoo tàbbi safara sunu borom giseen suutul bayna xaalidina fiha abadan moo tax kuy def ak njabar ba faatu ci faatu ci kooku moom sawara lay def ay diw sawara lay dem wala diw mii ab yéefar yooyu nag la ahlu sunna nan defar ay waaye atte bi alal wajilu moom moom ci kaw jaww ji li wala fi nan ku far moom atte moom loolu la léegi nag mu des atte yi atte ay personne nag bu ci nekk dañuy xool mawaani yi kii ndax xam na li muy def est ce que def nañ iqamatul ci kawam est moom mbir mi leer na ci moom est ce que bàyyi na ko doog a faatu wala bàyyiwu ko doog a faatu yëpp ay détails la yoo xamante ni ca place wala bi sama charo bi am fasal law kaanu yaalamuun liñ doon jëndee day seen bopp lu bon la su fekkonte ni xam nañ te it nag li lay wan ne yàlla ku bëri yërmande la walaw annahum amanu wattaqaw moom la xasan albasri di wax suratul buruj naan xoolal yàlla rek qutila ashabul uxdud annaari zatil waqud waxin wu métti woow ba noppi mu ni inna alladina fatanu walula suma lam yatuubu mu ni doomu aadama njaaxum ko def lu mu rëy rëy rëy yàlla mi ngi lay woo ci kaay tuub mu ne ñii def lu bon la kufru sax lañ ñëpp fu ñu wax ni kufru mu ni walaw annahum amanu wattaqaw gis nga bu ñu gëmoon yàlla weddi lool wattaqaw ñu ragal yàlla mooy tu njabar la masubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalamuun yool bi leen yàlla dencaloon di ko fay moo gën loon xam nañ aaya ji dama ko noon indi ngir jàngat yu sew sewaan yooyu nekk ci biir waaye dama ko doon indi wala ngir nga xam ne njabar lu yàgg la ndax xam ngeen Souleymane du barka ci démb loolu xam ngeen jàllal nga ñëw ci yonent yàlla Moussa alayhi salaatu salaam soo demee ci suurtu Araf nga dem ci suurtu Yunus nga dem ci suurtu Taha benn bu ci rek ay ayaat nga yoo xamante ni dig day nettali diggante njabarkat yi ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci sànni gi nga xam Moussa sànni woon ko yat wa njabarkat yi sànni seen yat mu nekk ay jaan fii mu daal di wëlbatiku nekk ab jaan bi mu nekkee ab jaan mu daal di wan li nga xamante ni mooy jaan yëpp. suñu borom ni ko talqaf ma sanaaw innama sanaaw kaydu saaxir lii ñu def nii ak njabar dong la lu mu ca teg wala yuflihu saaxiru xaytu ata gis nga njabarkat saa bu dajeeg borom pas-pas bu set fu mu mën a jaar laa yuflih du am ndam ca kawam benn ngoog waaye allaaxira tamit wala yuflihu saaxir njabarkat du fa mën a texe tamit kadalika kooku benn la beneen bi ci des mooy borom bi subhanahu wa taala day bay dimbali aji gëm yàlla su fekkente ne njabar dafa tàbbi ci kawam ci kaw moom bu dimbalee boppam ba noppi aayaat yooyu moo tax ma ni leen boroom xam-xam yi dañ koy jàng ci buntab mocc wala ñaan yàlla subhanahu wa ci wàllu njabar te xam ngeen ni Moussa du démb du barki démb du barkaati démb ndax Isa donc xam ngeen ni du barkaati démb te Isa moo bu mujj musaa kon njabar yàgg na fi lool nit ñi di ko jàngalante di ko jokkalante ba tey loolu dama ko doon andi muy benn genre introduction ngir ñu xam ne njabarangoog lu bon la seytaane moo koy def ku koy def ab seytaane la te kéefar la ku ci dee day tabbi sawara àllaaxira doo fa amuk cër te it boo tabbee sawara doo fa génn te it njabar lu wér day def jeexintal ci ay nit noonu la continuer njabar di am ba ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay njabarkat amoon nañ xam ngeen ne yonente bi alayhi salaam njabaroon nañ ko loolu sax la donte am na ay nit yu ñuy dégg ko weddi waaye damaa jàpp ni euh, benn bi am na képp ku ma ko laaj dafa am lu ma ko wax dama ne ko wax wax ju am solo ki nga xam ni mooy taxaw di weddi ni yonent bi njabaruñ ko woon xadis boobu wérut man li ma koy tontu mooy moom na defaraat njànginu alquraanam ba noppi alquraan su ko mënta jàng njàng mu set indi ahkaam ya kooku mënoo xàmmee xadis bu wérat du wérut loolu moo ci sama tontu mu jeex ndax li kulli maqaamin maqaam wax ju nekk am na ko ko moom ci bét dama jàpp ni koo xam ne booy jàng Qur'an su ma waaye ahkaamu tajwid dara du ca baax mënoo jàng jàng bu set yow daanaka izhaar ak ixfa yi nga xamante ni daanaka xale buy jàng tajwid moom lañ koy jàngal yooyu xàmmee woo ko kooku waroo wax ci xadis bu daif ak bu daif da ngaa war a noppi waaw ndax defe naa alquran réglé ko moo waroon gën a yomb ko réglé xadis bu wér ak bu wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la nag yow aji gëm yàlla ji même boo gëmee ni njabaroon nañ ko wallahu yaasumuka min annas bu mu la jaaxal parce que ginnaaw bi la doog a wàcc loolu bàyyi ko xel yàlla mu ni defal liñ la sant bul faale kenn soo ko defut nag am nga daan te nga xam ne yàlla moo lay aar ci nit ñi moo lay aar ci nit ñi ba noppi ñu di ko jabar muy jàpp ba ñu koy wax loola booba jabar gi ñëwagut yàlla moo ko bàyyi ñu njabar ko gis nga bàyyi gim ko bàyyi ñu jabar ko njàngale bu rëy gi ci mbokk jullit ci waaye njàng njàngale yu rëy njàngale mu rëy de njàngale yu rëy mu ngi ci waaye yëcca gën a rëy kenn ci ñoom dangay gis mu góor góorgóorlu mu ngi jàng Qur'an mi ngi def ay azkaram mi ngi def yëpp ba pare jabar jàpp ñu ne waa kii ni ko njabar mën a jàppee ah nu ko njabar war mën a jàpp moom daa ngi ci mbir mi amul dëgg la góorgóorlu gi ngay gër dana ci def jeexintal waaye nekkul sa sa xel daal nga ne man jarul may moytu dara da ngay gis koo xam ne du moytu dara ndax de jàpp na mi ngi jàng xorob yaa ngi ci musiba ju man maa ngi def samay azkar maa ngi jàng quran kon tiituma ko ci nit ñi léegi da ngay dee léegi léegi ngay dee li ko waral mooy saxaaba yi ñoo la gën a sell fuuf te dafa am yu doon xew ci seen biir yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dem ba mu yàgg mu mel ni kuy fàtte waaye nag njabar gi defaloon benn jeexintal ci waxyu gi moom loolu borom xam-xam yi ci wax yëpp dëppoo nañ ci ci mbir àddina am la woon mel ni kuy fàtte wala du xam sax fan la ayee ci soxna si soxna yi wala boobu maanaam daal xel mu xaw a jaxasoo tuuti mu daal di woo Aysa mu ni ko Aysa ñëwal Aysa ñëw mu ni ko est-ce que xam nga ni man day ñaari malaaka ñëw nañ fi léegi wax nañ ma li xew ñaari malaaka ñoo ñëw kii taxaw ci bopp bi kii taxaw ci tànk yi kenn ki ni ko waa yow est-ce xam nga ni ngóor si dañ koo njabar mu ni ko ah mu ni ko ah dañ koo njabar ku ko njabar mu ni ko benn waay bi ñu wax Labid ibn al-A'sam fan la ko njabar ci jartu gi xam ngeen jartu ñii waa Ndakaaru lañ ndeysaan peñe <laughs> kooku de mag la waaw mooy ak peñe peñe léegi lañ ko commencé wax ak jartu peñe bi peñe bi yan doon peñe woo la jël ak jeexintali kawar ya ca des bàyyil xel baax a baax a baax ñu bari ci ñoom dangay ngay ñëw ci coiffeur yi wat sànni ko sa kawar dem wala nga wattu sànni fee sa kawar wala nga peñewu sànni fële amul bismillah amul dara amul musiba ngoog wala ngay jigéen nga gis muy lett pare jël kawar gi sànni fële gis nga bu xaaba yi bokk na ci yiñ gën a soxla sa kawar sa ñaq bu laal ci sa yére moo tax nga gis jigéen weer yéreem ñëw gis ñu ko pëti ko am na jigéen ju nu suma mbokk dafa newoon ci kër di sey bokk na ci yi ko gaar dafa weer ay yéreem ñëw fekk ñu ko yére bi yóbbu parce que maanaam lu laal sa ñaq dañ koy soxla bokk na ci yi gën a danger mooy jigéen ji mu gis règle ba noppi yi ñu jëlee règle nga taxaj rek dem sonni ca bi daal di sànni am na njabarkat yoo xam ne dañuy wër ci yooyu gis nga gis baax googoo lañuy jël nal ko génne deret bi am na lu ñu ci war a bind ci ay njabar loolu mi ngi am kon buntu yooyu buntu yu garaaw la nit ñi war ceeñ bàyyi xel nga peñew waxal bismillah soo paree fëggal karaw gi soo amee kawar leegi say we gasal nga suul léegi bi mu ko jëlee mu daal dem ba ci ab teen daal di ko fay dugal mu ni ko ñu ngi ko dugal ci teen bu nekk barab sàngam teen ba ndox ma dafa suppeeku xam nga teen bu ñu ko rootul ndox mi day commencé vert mu ni mi ngi dem ba mel ni ndox mu ñu jaxase fuddal yonent bi yabal saxaaba yi alayhi salaam bokkoon ñu dem bi ñu demee effectivement ñu gis njabar ga foofa dañ koo dindi rek fa ka annama nusita naa aqaal maanaam mi ngi mel ni benn waay bu feebaroon ci misaal xam nga am na xeeti comprimé yoo xamante ni da koy naan rek affaire bi daf laa déclenché maanaam dafa mel ni daal affaire bi dafa yenneeku ci saas rek yonent bi commencé yëf ak cawartewaat ndeke njabar gi dañ na ci la suñu borom jox euh, falaq ak naas ci la doon wax ni musluwuñ ci muslaay bu gën a rëy falaq ak naas kon yonent ginnaaw bi loolu nag njabar jàppatu sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla wallahu yaasimuka min an naas léegi garantie bi ñëw na beneen bi ci des mooy ci jamonoy yonent bi sallallahu ci jamonoy saxaaba ya ay njabar da doon am ay nit dañu leen di njabar njabar baax njabar gi di jàpp nag yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale na ko wane ni kufru la comme ni ko alxuraan saxalee waaye ki koy def moom ab àtte mooy rey moo tax ba waaje ñëwee sum way di jéem a dagg bopp di jéem a euh, kuppati fii ak def ay euh, kii ci kanama buur bi Abu Darin al-Ghifari daa rocceeku ndànk dem ca biir këram jël jaaseem dal di koy teraxlaayoo dugal ko ci biir làmbaay li mu yore ñëw mel ni kuy seetaan bàyyi ba waa ji wëndeel di def nii ak di def naa ah naan mën naa wekki sa bopp bi defal la beneen bopp fekk ay njabar la rek parce que xam nga njabar nit ki mën naa def loo xamante ni nekkul xaqiqa donte nag foofu ñii wax ni njabar nekkul du ay réalité déedéet njabar day def lu nekk ay réalité def lu nekkul ay réalité te njabarug Moussa ga sunu borom euh, gaa yi Moussa ya dañuy saxaaru ayunan naasi wastarhabuhum maanaam day def loo xam ne xayaal kese la say bët lay njabar yow ngay gis ni ab poteau lampe moo taxaw fii sama kanam fekk poteau lampe du dara. waaye dafa am sexar boo xam ne xaqiqatan lu am la day dal dóor ak ci sa kaw loolu tamit ñaar yëpp dafa am léegi bi mu ñëwee mu daal di bàyyi ba waaji wan ko gannaaw rek mu telli baat bi nit ñi ni ah kii lu muy def mu ne ko yonent mu ne xaddu saaxiri darbatun bi sayf yonent bi